ayca Bilal Ndiaye sama caméraman attention arbitre dafa soufflé rek booy doorante booy ba daw ko mbot ko samp na bopp ba la ilaha ay bébé rog daan ko bébé rog daan ko bébé rog bandi la waay bébé rog mooy saay saay ayca bébé rog o oh, MD